<laughs> waaw kay dañ may dañ may ma nag ngeen xamante <coughs> lu wokkul dara wokk ma maa ngi nii jàmm jàmm ak salaam wax leen lu wokkul dara wokk ma léegi waxal. laa war a quarantaine. kan. nee man quarantaine naa sama ba pare dara jotuma fi ma nekk moo am poussière rek waxal. mais kii papa mooy wax wala nay. kan mooy wax ci man baaxul ma wax. man maay wax. ah ayca laa ko xamee 100 mètres. noo ko xamee 100 mètres. dama dafa amoon benn làmb foofu fekk mu nekkoon fa yàlla teg ko benn nattu. fekk mu nekkoon fa. Mhm. léegi bi mu fa nekkee. Mhm. suñu borom dogal ma demoon fa benn làmb amoon fa. détenu yi réclamé woon ma. Mhm. ma ñëw fa di jouer spectacle. final mbapat boobu sax moo ko jël. mu présenté wu ma ni ma géejawaay laa dëkk. ma ko man géejawaay laa dëkk mu ne ma xam naa ni géejawaay nga dëkk kay ma ne ko lu lay indi fii mu ne waaye benn problème bu amoon rek comme fekkew ma ko sax après ñu téye fi affaire yooyu ma ko yàlla dina la fi jële ma ñibbi nag ndeysaan sama xel bi mhm. yëpp nekk ci moom nag après toogaat mhm. naa trois ans ton toogaat naa deux ans gisuma ko ba après suñu borom teggil ko natt mhm. boobu ci ni mu gën a gaawe après ci lañ gisante waat xamante ba sëy am waaw franchement waaw mais loo kon yow kon da nga ko gis rek coup de foudre bi dugg. waaw mën na nekk da ko gis rek. man moom sama diggante moom suñu xamante histoire la te téléfilm la te dama koy def téléfilm. <laughs> documentaire d'accord léegi léegi loolu documentaire bi ñu ngi koy xaar avec impatience parce xam naa ne documentaire bu nara bu nara bu nara impression bu nara impressionnant la parce que xamante xamante bi xamante bi condition yi franchement c'est un truc ko ko dégg. di nga nee loolu moom mbëggeel dëgg la papa bi nga gisee may bi ngay dem si moom bi nga gisee may di dem si moom lan nga yëg lan moo la poussé nga. ah dégg ma. ma ne lan. bi nga ko gisee bi nga ko gisee jour yaa may dégg. cent mètres nga gis la. réseau mooy daa doog trois heures et demi jàpp sa yaa wax dafa yaru. yaa wax dafa yaru. moom mooy bu jeex exact la la jox. <laughs> yaa yaa wax dafa yaru. Eh, kii gën a kii ci gën jox joxe na en tout cas heure bi exact la joxe heure bi exacte. heure bi la joxe léegi yow nay da ngay mais da ngay confirmer date mariage bi. waaw la. loolu date boobu la ah. barke yàlla loolu am na. boobu date boobu la la ne waaw nga ne ko waaw. le 19 novembre 2015 jeudi. ah. trois heures yooyu noonu lañ takk sëy bi daal. 19 avril 2015 tombeeg may tëgg soirée mu dem fekk soirée ba <laughs> ba tas <laughs> xoolal mu invité xaritam yëpp invité famille yëpp ñëw ci ci ci ci ci mariage bi fekk jour boobu maa tëgg rabe mu ñëw ba ba di xeex soirée ba tas <laughs> moom mi indi ay nitam dégg nga doo confirmer ah. Papa da ngeen confirmé. waa tuuti rek. <laughs> mais Papa lu tax nga def loolu la wala lan la. non non non non pourtant. yi am ñoo xam ne moom nama yàlla baal di jégal ma dañuy xaw a mën a tooñ tuuti quoi mais bref loolu bu ndaw la woon rek mais lu mënta ñàkk loolu. d'accord léegi Papa Ndeye su lu muy def. ndéegay bu meree. bu meree moom faaw mu lekk oh. ginnaaw soog faama jëndal ko ginaar ak coca coca. ginaar ak coca moo koy gibloo. léegi léegi daa benn xarit. moom mooy jaay fii si dibiteur bi fii Alioune la tudd. su meree su meree rek damay woo Alioune Naar moom mooy lakk génn ginaar rek indi ko fii. mais mais mais balaa ngay balaa ngay jënd ginaar bi loolu pour mu gif la su nan nan lay réagir ban réaction lay des mu jël ànd bi di si sol mu rek si si si daal bi. <laughs> wala mais seet yi seet yi seet yi. <laughs> yoo xam nga baaxoo kii dama ko <laughs> daal ànd bi lay jël di ci <coughs> daal ci yu mel wala muy wala seet yi fii. mu koy sëlmoo. di ko sëlmoo j'espère que du ko mëkk rek j'espère que du ko mëkk. xaw ma est-ce que seen tuuri nag daa mel ne seen tuuri la nag. mais mais mais léegi yow. seen maam ah, indo la jógee ay maamu indo. ah. waaw wuy man day léegi ba ba bu mere lu muy def. man bu ma meree bu ma faa ma bëre. non ba baal baal nday tontu ma xool. maa koy tontu sa <laughs> su meree nu muy def. man bu meree du ma ko faale du ma wax ak moom dama koy bàyyi ba mu giif. xaar xaar même une minute. nee naa deux minutes seetaan di ko woo. maa ngi leen di deux minutes. nee na ñu ne nee na ñu may Fatou Soumaré dédicace ndax Fatou Soumaré day dugg tout le temps fan sam la. fan fan su fan su ndey gay la. donc Fatou Soumaré ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax papa. kii ah. nay papa su meree ni muy def. meree moom. du dégg. gaynde gu tëx lay doon. Mhm. du dégg du gis du wax. du dégg du kii du gis du wax. waaw. bëggee bëggee Fatou Soumaré bi may wax. Fatou naa la lu bare bari bëggee naa la lu baree bari. me nday moom moom moom nee na yow ginaar boo lay giifal de moom na lan moo koy giifal. kan moom moom da ngay waxtaan ak moom ci njëkk amul benn problème moom. wax fa dëgg yàlla. mu mu mu waaw moom moom sama xarit la moom. moom lu tooñ métti métti boole koo lu tooñ métti boole koo baal ma. baal ma amul benn problème moom dëgg yàlla moom. sama gaañ la ma. d'accord sama doom la. macha allah ban ban ban connerie la ban connerie la def boo xamante ni doo ko chaque jour li la def loo xamante ni. xam nga ñaar ñi ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti laa bëgg nga wax leen ñu téye seen gémmiñ sëñ mhm. Mbàkke Ibou Sène Petit Dieye waxal ak ñoom sëñ Mbàkke Ibou Sène Petit Dieye tëj leen seen gémmiñ non tëj leen seen gémmiñ waaye frère ngeen bàyyi ngi waxtaan dama leen di duma de eh, dal musul de ñëw <laughs> daa daa doon <laughs> dégg na la <laughs> ñu dem léegi waaw léegi léegi papa moom ban ban ban lan la la mës a def loo xam ne anecdote bi da nga koy soo ko wala bu marqué la wala mu nekk loo xamante ni franchement ça ça reste tête. man moom chaque chaque jour mu def ma lu may reetaanloo chaque jour démb rek ju mujj démb ay quatre heures du matin. mu war a tëdd nelaw. mais mais am na ci bu la bu la marqué. yëpp may marqué kii lu mu def ay la may def démb ay quatre heures du matin laa yuuxu fii di reetaan. fekk dama dugg ci TikTok bi di seetaan wayu baaba maa ba boobu katam beew doo fee bi mm-hmm. yaay mu rek rek ko faa jóg <laughs> <laughs> ay quatre may reeree xam ni non chaque jour mu def ma loo xamante ni ay ree daf may daf may jàpp vraiment waaw loo xamante ni day des si mais léegi jàpp ah macha allah allah macha allah yàlla na sax papa yow lan lan moo la marqué lan moo la gën a marqué si Ndeye Gueye loo xam ne mën nga ñu ko mën nga ñu ko nettali. moom. Hmm. daa daa bi feebaree moom bi mu feebaree moom moom contrat am moo. ah nga. ah. ñu def benn juin. aywa. papa nu ñuy waxee xar ci français. xar. Hmm. est-ce que du mu mu mu mouton. bravo boobu trouvé nga ko léegi nan la ñuy waxee sama jabar mooy sama xarit. ma femme et mon ami. waaw waaw macha allah léegi ba tey léegi nu ñuy waxee làmmiñ ci français làmmiñ. làmmiñ. déggu ma. eh non kii wax ci suuf na bàyyi kii wax ci suuf na bàyyi. bu mu yàq tamit kenn ah. déggu waxul kenn waxul. ah waaw baax na ba tey. ma ne nan la ñuy waxee làmmiñ. li nga wax day dégg rek nga ne. nan la ñuy waxee làmmiñ ci français. làmmiñ la langue. waaw cum ak kéeréen bi cum léegi ba baax nga ngay naan lu tàng nga bëgg wax ne li may naan dafa tàng lan ngay wax. Ah? nga bëgg a wax ne li may naan dafa tàng lan ngay wax. <laughs> ah non boobu xaw ma ko <laughs> léegi. léegi dañuy def beneen jeu. lan mooy couleur préférée wu Ndeye Gueye. Ndeye Gueye. Hmm. Ndeye de ada jabu moom lu ko neex sol. <laughs> waaw noir noir la bëgg. <laughs> baru Sénégal <laughs> lan mooy Ada Jàbb loolu moom maa ngi koy dégg moom boobu lu mu moom yaa ban la. séeréer <laughs> wala léegi moom ban mooy couleur préférée noir noir. nday da ngay confirmer. waaw noir mooy sama couleur préférée. nday papa lan mooy couleur préférée papa bleu. papa da ngay confirmer. man waaw. waaw ayca léegi yow ñu dem yow du ma yàgg du ma ñëw ci sa plat préféré ndaw wax nga ko pare xam naa ko mais nday lan mooy plat préféré papa. Ndeye. Hmm. kii ah Mbaxalu Saalum. Mbaxalu Saalum nday da ngay confirmer. non barke TV léegi yow nday lan lan la gën a bëgg ci àddunaam léegi micro micro. micro Ndeye da ngay confirmer. waaw Ndeye da ngay lan la papa gën a bëgg ci àdduna papa. werante. Hmm. papa da ngay confirmer. <laughs> ba confirmé ba confirmé la yëpp. mooy mosuñu ko am kay papa seen date mariage kañ la. date bi ah. exact bés bi ngeen marié woo. le 19 novembre. 2015. ban année. jeudi. trois heures trois heures et demie. jàpp sa <laughs> yaa wax dafa yaru yaa mooy moom mooy bu jeex bi heure bi exact la la jox yow yaa wax dafa yaru kii gën a réew ci Sénégal kii ci gën a jox joxe na en tout cas heure bi exact la joxe heure bi exact heure bi la léegi yow nay nay confirmer date mariage bi waaw loolu am na date date boobu la la ne waaw nga ne ko waaw. le 19 novembre 2015 jeudi. ah. trois heures yooyu noonu la takk sëy bi daal. 19 avril 2015. tombeeg may tëgg soirée. mu dem fekk soirée ba soirée ba tas. <laughs> mu invité xaritam yëpp invité famille yëpp ñëw ci ci anniversaire kii ci mariage bi fekk jour boobu maa doon tëgg rabais mu ñëw ba ba di xeex soirée ba tas moom mi indi ay nitam dégg nga doo confirmer ah. Papa da ngay confirmer. waa tuuti rek. mais Papa lu tax def loolu fiiraange la wala lan la. non non sa xam nga sénégalais yi daa am ne moom na ma yàlla baal di jégal ma dañuy xaw a mën a tooñ tuuti quoi mais bref loolu moom erreur bu ndaw la rek mais lu mënta ñàkk loolu. dafa am léegi papa su meree lu muy def. ndéegay bu meree. bu meree moom faa mu lekk oh. ginaar soog a giif. <laughs> faa <laughs> ginaar ak coca moo koy gidloo. léegi léegi daa am seen benn xarit. moom mooy jaay fii si débiteur bi fii Alioune Naar la tudd. su meree su meree rek damay woo Alioune Naar moom mooy lakk génn ginaar rek indi ko fii. mais mais mais balaa ngay balaa ngay jënd ginaar bi loolu pour mu gif la su meree nan nan lay réagir ban réaction lay am. fois mu jël ànd bi di sol mu rëcc si si si doomu daal bi. <laughs> wala mais mais seet yi seet yi seet yi. yoo xam nga baaxoo kii dama baaxoo kii. su meree daal ànd bi lay jël <coughs> kii doomu daal ci biir mbéy wala muy wala muy seet yi fii. mu koy sëlmoo. di ko sëlmoo j'espère que du ko mag rek j'espère que du ko mag. xaw ma est-ce que nekkul seen tuuri nag daa mel ne seen tuuri la nag. mais mais mais léegi yow. Eh, seen maam ànd la jógee ñëw. dañu am ay maamu indo. Ah.